nitu yàlla yi ku ci xool rab boo xasee rab ba sa daal parce que leer ni yàlla dana la nattu ci xas boobu nga xas rab waaw nattu ci yeneen yàlla noonu nattu ko ba changé turam tuddee ko noonu alxuraan ñëw ñuy xanaa bu alxuraan ñëwee moom dootul tuddee noonu yaskur la koy woy alxuraan wooyu ko noonu te xaj la rek tam xaj la sabote xaj bi romb di dem rek mu ni xaj bi daal ndax mu noonu la fexee ba ka kawar yi wàcc ci bët bi xaw yaatal bët bi tuuti ndax bët yi sew na loolu ak kawar gi ak di ree waa xayba interpellé ko ni ko ku ñu yar ci wax yu amuloo droit xas kuy dundee ay mul la dundee ca rab yi ca ay mul la dundee la ñuy tànk te ñu bari na xamuñu loolu ndox fàtte na loolu ndax reer na ko sabote na ko te borom wax yu du sabote koo xam ni tàngoor la dund yi lay dund waaye gis nga foofu xaj bi def am solo te mooy wax ko ni ko bi may reetaan fàtte nga ni aay wala dund bi mu ngi ndax borom bi jox na ko te le tourné rek ni ko mag mu am neuf cent cinquante ans ko mission boo xam ne mission universelle war na am benn bu du di reexaj bi ko te itam bu dee xam nga démb war nga xam ni ña doon bind kenn bind ci sa bopp ku ci doon bind sa bopp gafet nu bëgg mu nekk fa di ko wax wax ju dal ndax xelam dellu si mu wan ko gannaaw dem di ko di jooy di jooy ba ñu tuddee ko nooy ndax jooy ak yëkk yam doon def te jooy ba la doon du woon jooy rek pour rangooñ bi génn ci ay bët rangooñ bi mooy erreur bi mu defoon te erreur bi dellu takku ci nubuwa bi ba léegi su ko continué woon mu bloqué ndax wax na lu mu warul wax loolu jaar ci espace intermédiaire yi texte yi dafay bu consulté nara nara attaqué nubuwam comme ni rab di attaqué dara comme ni feebar di attaqué dara ci yaram comme ni góom di attaqué yaram wax ja nox wax wax jooju ngay xeex nara attaqué nubuwam yàlla ni léegi nag comme nar na ko attaqué kon foog nga génn maa jib moo indi jooy bu jooyee ba xelam dal rek ñu ni ko jooyaatal ndax des mu mujj di jooy comme mag la amatul force muy yëkk tax mu tuddee ko Nuux kuy jooy di yëkk waaye bi mu jeexee rek la noppi bi mu jeexee la noppi tourné ci mission